asalaamaaleykum bokki jurit yi ni seetaan ak bokki taalibe yi jot nañu ndigal nag ci sëriñ moon Mbacké xalif général des mourides yàlla na fa yàgg lool te ànd ñoo nga jëm nag ca bis bu rëy ba fu nu jëm ca kuréelu fàttaliku julli géej gi sëriñ nag le 21 septembre lu juloon ci océan Atlantique diggante Ndakaaru ak Conakry bis boobu nag la ñuy fàttaliku ca jàmmalaay ci ndigal sëriñ waaye nag ci kilifteef nag sëñ Bassirou Mbacké moom Cheikh Abdou Khadar alaaji Mbàkke Faye mi nga xam ne mooy représentant xalifa général la ko wër waaye ci njiital jàmbaar ja jigéen ja ajarat soodu xuma jigéen ju mën góor bis boobu nag la ñuy waajal moo tax ñu toog fii nag ca grand mos masakal ji naan dox ak waa adduna bëgg waa réew mi waaye bala maa sax ma jox ku ñëpp xam ci réew mi muy a alaaji Ablaye Mbaye Peex noo ngi ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg lool mbak te wér waluk la ko def dafa mokk te kenn déggul kuur ga ku xool màggal gi ñu génne da nga ñaanal Cheikh Ahmadul taxa mu yëkkati kàddoom nag indi ko fa ko waajuree mi doon indi ak magam ya mu julli géej gi soxna Sooda Xumma ak sëriñ Youssou Diop waa is bu tarxiyee yëpp sëriñ bi boole leen moom tereen ren mun Muntaxa wax ni nañu dundal njàngum xasida mi xasida yi sëriñ Tuubaa yi li mu man kenn mënu ko waaye rawatina nag ndakaaru xasida yi moo moo tax xasida yi fonk nañ ko soxna Sooda nag woo ñëpp waaye xam ngeen julli ga ca saan danoo am ilimaan ju kenn amut ilimaan jooju mooy kan mooy sëñ fallum sëñ Abdou Khadir Cheikh Abdou Khadir a ko jur soxna Bintu Mbàkke ko jur Cheikh Abdou Khoudous a ko jur Cerno Ibrahima ko jur jiite rek la doon kooku mooy suñu ilimaan waaye soxna Soore nag yaatal yëgal ko ñëpp ah ñu yàlla teg réew mi ci loxoom gis ngeen CRD biñ ci def président de la république Bassirou Diomaye fay ak ki nga xam ne ki tubaarkàlla mooy premier ministre Ousmane Sonko ak ministre de bi nga xam ni dafa taxoog sunu mbokk di taalibeem sëñ Bamba di Samba Jaw moom Seex Masamba waaye xam ngeen ni nag julli géej gi kenn du ko wax te indi woo Antoine Diome taalibe sëñ Tuubaa Cheikh Saliou Mbacké borom ngot borom dal borom xabaan borom njurul Antoine ak julli gii a tey lan la gën a waaye nag président amadu Ba yow nag parcelle lañ koy defee moom ci boppam dana ñëw dikk toog waaye kenn du fàtte maître Madické Niang yàgg na nag moom de kenn du fàtte Mbaye Ndiaye ministre d'État fa la dëkk tubaarkalla kenn du fàtte jëwriñ Papa Diop président TNA moom moo de moo tax soo soxna Sooda bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn waaye rawatina nag yéen taalibe sëñ Bamba yi ci Ndakaaru Abdoulaye Diastani ko di kenn ci kër Xaadimu Rasuul ak julli géej soxna Sooda miin nañ la woo woo nañ la Abdoulaye Sylla Ecotra mi nga xam ne ba ki dem moo jaar ci ndox mi xuus sëkk kambi bi sëñ Bamba yi woo nañ ko moom it de woo réew mi yépp nag Pape Fall ami bitik di kenn ci kër Serigne Touba ak ñoom Baara Gaye njabootu sëñ Bamba gi mais bugaan gii dani tubaarkalla ah jëwriñ ki nu yàlla booleel waaye sëñ Baara wax dëgg nee woon ne li sëñ Bamba bëgg ndakaaru mbakk yu fana ko mbakk yu fayee ko man jëwriñ bis bisa bisa ku dikk fekk la ci ku dem bàyyi la ci Makhtar Diop Pedro kenn du kenn du la kenn du wax ju liggéey jiite woowatul la jiite nga koy at te yàqoo dara soxna sooda kenn soxna moomi kebe mu El Hadj Abdoulaye Tage ah tubaar kàlla ajab soxna Ayda Mbodj di taalibe sëñ Bamba soxna Aminta Tall jigéen ñi ak membre gouvernement bi ñi ci di jigéen ñoom it woon nañ leen bis bi Ibra mu ngoog Cheikh Mountakha taxaane bis bi ku ci feeñ ci lu baax dootoo nëbbu diggante Conakry ak Ndakaaru boo julee ci gaal gi tooñ ñu boo julul tooñ yàlla sa borom Serigne Bamba sànni derem ci dox mi cëppeelu parce que rek lañ koy julee daanu xool ndox ma nag waaye kenn du fa dugg bu ñu julli dañuy seen géej gi waaye kenn du ko jege sëñ Bamba képp fi ne moo moo tax bis boobu nag bisu sëriñ Touba la moo sax sëriñ buub di taalibi sëriñ Bamba ah maire de Kaolack woon nañ la ci bis bi ma bàyyi nag ak kàddu gi soldaar bis baa ngoog moo tax jëwriñ alhaji Mbàkke yu fay wooma boole ma ak sëriñ Mbay Njaay Sanusi boole ma ak sëriñ Moussa Baan boole ma ak sëriñ Modou Gueye ni bu ngeen demee teewal leen ma fa ci ki nga xamante ne su ma wootee ci jumaa ji muy ajaratu soodu xuma kenn du ko fi jëkk sëñ bi wax ba dem ci géej gi su ko gaa yi waxoon ànd ak sëriñ bi dem ci géej gi la la la gaa yi wax ba doon nit ñibbi bu ko sëñ bi waxoon doon nit ànd ñoom ñibbi waaye moom rek a taxaw ni shahidu anna laa rabbul xalqi wa anna ahmada rasulul haq xul walaahu ahad allahu samad lam yëlit walam yulat walam yakun lahu fan ahad del si fii nag le 18 le 19 le 20 septembre mu jóge ndar indaale alxames yi mu indaale kooram nga ñu tëj ci kan jël job bii vingt 21 septembre nag mu tàmbalee Dakar jëm Conakry moo Alaaji lay Mbaye Peex dem dikk sëriñ bi ku ma dem fa nga des sëriñ bi rek dem dikk julli géej gàngoog ajarat son xuma li nga bëgg di ko am ndax nag kaay sëñ tubaa boo dee mu musóor liggéey ci yoon wi lu ñuy wax it mu jox la lu mu joxul borom kaala kon ajarat soodu xumma liggéey bu rafet bi doo ko dégg soraanoo amul fenn fu muy dem fu lan ci liggéey sëñ tubaa kon bu sëñ Muntaxa jëlee ni ajan ana ana sëriñ si Jóob ànd leen ak is Hizbut Tarqiyyah gépp na ngeen dem nag jàppaleel ma ko ndax moom laa tuddee shuhadaawu ñun ñëpp ñoo ngi koy waajal Alaaji Mbàkke yu nag nee na boo dem daayira yi ci Ndakaaru fédération yi lépp nan daje ci kuréelu géej gi le 21 septembre ànd ak moom ajaratu gàmmu Jóob mi nga xamante ni moo jiite jigéen ñi ci Ndakaaru di fédération yëpp moom it am na sax ñu ko fi nekkal waaye nag soxna Ndey Ndaw waaj leen rek nu waajal julli géej gi xam ngeen ni soxna may mene bintu Xaadimu Rasuul moo noonu maa jiitu ajaratu soodu xuma topp sama gannaaw loolu nañ ciy bàyyi xel bu baax Cheikh Mbuub nag moo ci turu diaspora bi ay littoral nan nga defee appel bi. Euh, li ma bëgg a wax rek mooy xaadimu rasul bi muy julli ci kaw géej gile booba li mu doon wane rek mooy njàmbaar goo xam ni da ciy wane yàlla sunu borom subhaanahu wa taala njàmbaar gu tumuraanke nag gu singulier gu kenn mës def ndax dafa wax ni yàlla moo ma yaral géej gi yaral ma kosmos bi yaral ma atmosphère bi jë à dompter le cosmos l'atmosphère et l'océan amoon mon endroit kooku nag ñu jël julli gi nag teg ko ci loxoy soxna Sooda Xuma ci ndigalul sëriñ Muntaxa mu bëgg nag àdduna yëpp yëg ko surtout littoral bi waaye surtout diaspora bi nga xam ni fa jóge jógee bi nga xam ne nii ñoom it lu yëngu ci xaadimu rasul nu jàpp ci kon ñu ngi woo diaspora bi waaye soxna Sooda nee na mi ngi woo littoral bi yëpp mboolem la tàmbalee cité Djily Mbaye jàmmalaay la tàmbalee Yoof la tàmbalee géejuwaay la tàmbalee Parcelles Assainies lépp nga xam ne tefesu na géej gi daal soxna Sooda nee na yéen a moom julli gi waaye ñu ngi woo itam fédération yoof julli géej gi fédération yoof julli géej gi ñu ngi leen di woo ci njiitul soxna Maguette Sène ñu woo Cheikh Mansour Diouf moom itam ndax xam ngeen ni jàmbaar la ci liggéeyal Xaadimu Rasuul. mais kàddu gi ñu ngi ko jox sëñ Abdoul Ahad Samb moom it war kàlla xam ngeen diggante mu julli kuréelu julli géej gi seen lu laat bés baa ngoog keroog la jël daram bi teg ko ci biir géej gi julli fa tisbaar ak takkusaan ci nettalig sëriñ Moulay Bousso moom sëriñ Mbacké Bousso ñu am ci ndigalug sëriñ Saliou Mbacké mu teg fi Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na fi yàgg te ànd ak wér jiital ajaratu soxna Soodu Xuma mi nga xam ni moo yor liggéey bi jamonoy Baye Nazirou Touré Baye Baba Diaw Baye Alioune Badara Cissé Mouride ba kii fi jaar di Makhtar Diouf Pedro ba kii fi nekk tey daa jël soo Soodu Xuma yal na fi yàgg tànd ak wér doon jigéen sëriñ Mountakha xool ko ni ko damaa xool ba xam ni man nga ko moo tax ma jiital la ci kanamu liggéey bi nekkal jëwriñ ji xool sëriñ su Diop ni ko damaa laa digal ngeen ànd ak moom al muridu man la yamliku shay'an wa la yamliku shay'un takunu muridan suma fika iradatun fa in lam tur tamarit bés boobee moom la ñuy woote mu tombeek le 20 ak le 21 septembre le 20 septembre mooy bésu maam Cheikh Ibra Fall Mouridine le septembre di bés bi nga xam ni ci la Tuubaa jullu woon ci biir géej gi ajaratu soxna Soodu Xuma jiite ko ànd ko Hizbut Tarqiyyah yaa soro ne na mu ngi woo ñëpp bayul kenn bayul fenn bayul ñenn waaye xam ngeen ne ajaratu Soodu Xuma jigéen ñëpp ci Ndakaar yëpp dañoo boot ci gannaawam fédération jigéen ñaa ngi nii toog bu na paree daan jox kàddu gi waa daayira Tuubaa dem dikk soxna Faat Jóob daayira soxna May Kebe Grand Dakar daayira ahlul yaqin soxna Bintu Ndoye ak daayira soxna Ndey Koddu jóge parcelle ak soxna Mbàkke bu bëgg fallu moo wax nag ci turu ajgam Jóob waaye ñi ngi ciy fàttali mam Isa Mbàkke ahlul kafe jàmbar ji waaye soxna Ayda Saliw ca Cambérène sa baatuwaar kàlla liggéey di Serigne Touba ñëpp gis nañ ko ñu ngi lay bàyyi xel bu baax di siyaare soxna Sooda Xuma di ko jaajëfatali ci bis bi di ko ñaanal yàlla bis bi nu mas a mel yàlla na ko romb ren ci barke Serigne Touba Mbacke commencé ci sëñ bi yem ci sëñ bi rek liggéeyal sëñ Bamba léppay baax a ah, di wax nag ni sama jëwriñ li ko tee ñëw dafa amoon tequ-tequ muy Serigne Ngom a ah, ñoo ngi leen di woo ñoom ñëpp waa daayira Dakar dem dikk bàyyiwuma kenn dale ku ndaw ki ba ci ku mag ñëpp ñu ngi leen di woo ñëpp di woo nag directeur Dakar dem dikk Assane Mbeng ñu ngi lay woo ci bis bi ndax bu ñuy wax daayira daayira Dakar dem dikk ku ne xam na ko ndax daayira Dakar dem dikk sëñ Saliou Mbacke moo nu boole woon ak isbu tarxiya ngi woo ñëpp directeur ñu ngi lay woo ci bis bi yaa ngi ñëpp koo àndal Dakar dem dikk ñu ngi lay woo di woo ñëpp di woo soxna yëpp nag bàyyiwuma kenn. soxna mbaat ko bu bëgg fàllu di wax ci turu gàmm bàyyi njoogu jóob ak ndaak aale galaay ci julli géej gi di ñaan yàlla sunu borom yàlla nañu ko yegalee sunu sago. sunu sago yàlla nañu yegg ci bés ba. soxna gàmm nee na mi ngi woo bépp daayira bàyyiwul fenn bàyyiwul kenn. nee na képp ku daan ñëw ngir yàlla ak jëmmam na nga ñëw ngir yàlla ak jëmmam ak xaadimul Mustafa ci jëm ci ci ci julli géej gi yàlla na nu yàlla defal jàmm ba nu yeggalee ko sunu sago. man soxna May Kébé Touba Grand Dakar ñoo ngi leen di nuyu di waxtaan yéen ci julli géej gi ca parcelle ñun nag waa Grand ñoo ngi soññee ñoo ngi soññee di woo góor di woo mag di woo ndaw di woo ñëpp ñun ñu nekk ca waañoo wu jëwri ni waañu ñoo ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn. ñu ngi woo waa Grand di woo waa ñaari tali di woo benn tali di woo si kaab sëñ seex ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn nañu ko daa doxe daal la ñu bëgg fas yéene rek ñu doxe ko ni kenn daawuñu jiitu ca waañ wa kenn daawuñu jiitu ca julli géej gi nañ ko doon doxale rek la ñu fas yéene bëgg koo doxale waat yal nañu yàlla jàppale ak yonent bi sëriñ Touba ba fa mu daa jaar rek mu jaar fa. di ñaanal sunu jëwriñ ji soxna soo doxuma yàlla bàyyi ko sunu kanam ñuy woo rek mboolem jigéen ñi Dakar yëpp mboolem soxna yi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey bi depuis ñaar fukki at ak juróom-ñett ñu ànd ko liggéey bi ak ñi nga xam ne ñoo ci doog a tàbbi ñëpp ñu àndandoo liggéey bi bu kenn des. ñuy woo yëmbal ga nga xam ne fa laa jóge ak sam-sam ga nga xam ne fa la soxna Aram Kebe nekk ñu koy woo sunu jëwriñ moom tamit ñu ngi koy woo ci liggéey bi di woo soxna maam Jaara Silla moom tamit ñoo bokk liggéey bi di woo soxna yee ca biir yëmbal yëpp. ñu ñu ngi woo ñëpp soxna Asou Gaawaan soxna euh, Ayda Dieng soxna nday Njaay Ndooy ñëpp ñu ngi leen di woo mboolem Malika Malika 1 ba 2 ba 3 ba 4 ba 5 yëpp ñi nga xam ne ñoo ànd kuréel gi ñu ngi leen di woo bawuñu benn baraak ñu ngi woo mboolem soxna yi nga xam ne ñoo féete foofu nga xam ne ñu bokk kuréelu ju liggéey gi soxna yëpp ñu ngi leen di woo ñu ànd liggéey bi di woo aqul yaqin gi nga xam ne ñooy daayira bi ma àndal goxuma góor bawuma jigéen bawuma xale bawuma mag ak soppay maam jaar nga xam ne ñooy suñuy doom di suñuy sët ànd ak ñun ci liggéey bi ñun ñëpp ñu ngi leen di woo xam ngeen ni nag ko bii kenn mënu koo woo tudd le maire des Parcelles Assainies monsieur Diamid Sané jàmbaar la ku bëgg lu la waaye ñu ngi ciy woo nag Salim Mboup carrefour médical ah Murid Sadi Xonk ak nag Barthélémy Dias la maire de Dakar lu ñuy def ci Dakar kooku war na ko yëg ak mboolum autorité étatique yi. Ajaratu Sow Doxuma nag nee na mi ngi wax mboolem fédération daayira Maam Jaara yi kenn ku ci na fagg daan féete ci liggéey bi xam nga ko incha allah ci réunion yi yaa nga jot solo monsieur mbay Ndiaye le ministre d'État ñu ngi ko yéeyaay si njaboot yëpp tabarkàlla ndax yéen parcelle ngeen dëkk waaye parcelle laa da xam ngeen ni bu ñu ko tuddee tudd nañu nit ñu baax ñëpp kon nag dama jox kàddu gi koo xam ni ñëpp xam na ko muy kan. sëriñ Lamine Diouf. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf euh, sëñ Ibra ñu lay nuyu bu baax di sant kilifa yi fi teew yëpp euh, ni nga ko waxee euh, dañuy ñëw rek ci programme bi nga xamante ni mooy programme mu bis bi di ñaar fukki fan ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre. Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général de Mourides joxoon ndigal suñu jëwriñ Serigne Youssou Diop jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah ngir mu ànd ak soxna Sooda jàppale ko ci liggéey bi ginnaaw boo xamante ni teg na ko ci loxoom. at yi yëpp nag ñu di ko ànd muy rafet ci fànn yëpp ren nag mu am ci lu ràññiku loo xam ne bokk na ci li ci gën fés mooy njàngum xasida mi nga xam ne bis bi doon na bis boo xam ne Cheikh Saliou Mbacké da daan wax ne. nañ ko def bisub ndakaaru ndakaaru nag ni sëñ xaadim waxee sànq bàyyiwul fenn lépp lu yër di ndakaaru te nekk ci kilifteefu sëriñ alaaji mbàkk yu fay tàbbi ci biir muy fédération daayira yi di kuréelu xaside yi di kuréelu euh, jàngkatu xaside yi jàngkatu benn benn yi jàngkatu aw yeeg ñëpp nga xam ni fas nañu yéene bisub ñaar fukki fan ak ak benn bu ñu ko tàmbalee ci suba ba ñaar fukki fan ak ñaar ci fajar njàng mi du dog lu dul julli ak li nga xamante ni mooy waxtu mën mënta ñàkk. noonu it moo tax fii ñuy wax ak yéen mbooleem daayira yi nga xamante ne ay kuréel lañu di ay fédération jógal nañu seen bopp ñëw seet si soxna Sooda ànd ak moom ci liggéey bi am na ci ñoo xam ni sax fan yi di ngeen dégg seeni wootey bopp ñu woote ci turu seen daayira ak seen fédération ci pas-pas bi nga xam ne am nañ ko ci ànd ak soxna si ci ndigal li nga xamante ni Cheikh Mouhamadou Mountakha yeesalaat na ko bisub ñaar fukk ba itam muy le 20 septembre buñ ne suba la julli géej gi moom itam xam ngeen ni bis la boo xam ne naka jekk dañ koo jagreel maam Cheikh Ibrahima Fall moom itam Baye Fall yi fas nañu yéene li dale ci waxtu woowu ba ca suba ak ñaar fukk ak benn zikru laa du dog benn yoon kon ñu xam ne noonu la sëñ bi bëgg ñu defe ko ni di ci fàttali nag ñëpp rawatina daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci ndakaaru ni nga xam ne noonu la Cheikh Saliou Mbacke waxoon ne nañ ko def muy bisub ndakaaru loolu nag yaakaar naa Cheikh Mouhamadou Mountakha moom jëf na ko ndax lu ñu gën di dem dégg ngeen léegi waa Kër Massar yëmbal fenn desul ñoo xamante ni ñu ngi wane seen itte ak seen pas-pas jëm ci bis bi. kon nag ñuy gën a jaajëfal bu baax kuréelu daayira yi ak fédération jokko yi ak kuréelu jànkatu xaside yi ak kuréelu zikrulaa yi nga xam ne boobaak léegi bi ñu déggee ndigal li ak xam joxoñ bii nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha def seen itte yëpp mi ngi jëm ci nu ñu tàbbee ci bis bi ak nan lañ koy defee bu mu dëppoo bëgguk sëñ bi ñu ngi ñaan kon suñu borom ci barkeb Cheikhul Khadim mu yeggaliñ ak jàmm ci bis bi ñu defee ko ni ko sëriñ bi diglee sàkku ci ngërëmam am ko ci tey ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mboolem li mu yéene ci liggéey Serigne Touba mu matale ko te ñu ànd koog moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. tabarkàlla bis baa ngi noonu waaye nag na ñëpp bàyyi xel ni sëñ Mountakha nee na nan nan nan na doon bisu xasida ak sikru la kon ndakaaru kenn du des ñi ngi ci woo ñëpp kenn.